jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM 97.5 yéen sunu mbokk auditeurs yi ak suñu mbokk auditrices yi. ngeen di sànd ak Abdou moom Seck. du Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi. dellu am mbégte euh, dellu si ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee euh, jàpp 16h. Euh, tey nag mbokk yi ñu am mbégte invité euh, monsieur le ministre euh, Thierno Lo moom mi nga xam ne moom mooy njiitul conseil d' administration CNTR nekk tamit njiitul alliance pour la paix et le développement monsieur ministre ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen nuyu di nuyu aussi seen auditeurs yi. ak seen téléspectateurs yi. monsieur le ministre tey waxtaanee fi ñu koy commencé mooy euh, li nga xam ne tey moo lëmbaaje réew mi muy rapport cour des comptes bi nga xam ne tey euh, def nañ ko ci xaalis bi nga xam ne moom lañ jagleeloon coronavirus bi mu nekk rapport boo xam ne dañu gis ay manquement yu baree bare yoo xamante ni am na si askanu Sénégal ñu baree bari am ci mbetteel euh, ñaawlu ko ba nga xam ne. président Macky Sall sax yëkkati na ci ay kàddu rapport Cour de comptes boobu bi mu génnee nga dégg ko nga lire manquement yi ban gis-gis nga si li ma ci jëkk retenir comme principe mooy euh, kontaan xam ni Sénégal république bu taxaw la li tax mu nekk république bu taxaw mooy su fekkee ne ay magistrat dañoo dem génn rapport bu mel noonu. ci am réew moo xam ne bii ñu ngi ciy épinglé ci parti au pouvoir bi lañ nekk loolu mooy wane ne Sénégal république bu taxaw la démocratie la et am nañ aussi ay nit yoo xam ne yii xooluñu par parloo dañuy def li nga xam ne moom la leen askan wi sant donc ma féliciter leen magistrats ak itam tiitaroo loolu que ñu génne lu mel noonu ci ab gouvernement lu ma war a tiitaroo xam naa kon am naa réew moo xam ne mii am na ay bànqaas yoo xam ni taxaw na fa deuxième constat mooy li nga xam ni la ñëpp bokk képp kuñ ko dénk danga ko war a jaare ci yoon ba mu set léegi li nga xam ne bi am na mooy cour bi def na liggéeyam def na ay recommandation ne nañ ko yóbbu justice le président la république joxe na instruction premier ministre am ne ko na ko topp ba mu jeex ci justice nañ ko def pourquoi le premier ministre. nañ ko def lan moo si yoonu premier ministre. li yoonu premier ministre mooy euh, le procureur ci premier ministre la dépendre. comment defar na parce que. nu mu dépendre si premier ministre. le ministre de la justice procureur ci suñu arsenal juridique ni mu tëddee procureur bi dafa dépendre ci ministre de la justice donc bu ñuy joxee moom la ñuy jox moom mu def li mu ci war a def après imputer ko yeneen juge tribunal ña fa nekk yëpp di ay juge ak ay magistrat ñooñu jotewuñu dara ak exécutif bi mooy gouvernement bi mais procureur ci ni ñu arsenal bi ni ñu ko tëggee ak ni mu tëddee ci ministre de la justice la dépendre kon bu ñu koy jël moom lañ koy jox premier ministre bu ñu ko joxee ndigal ministre de la justice lay jox ndigal ministre de la justice jël dossier bi jébbal ko ki mu ko war a jébbal ñu dox ci liñ ci war a dox mais li ñu war a retenir mooy cour bi liggéey président la république nee na nañ ko teg ci yoon kon waa justice seen bopp ñoo war a jouer seen rôle. léegi lan moo waral pour que ñu seet. léegi lan lan moo euh, monsieur ministre pour que ñu seet moo def ak moo defut dañ ko war a yóbbu ci wala ma xam ne nekkee benn ñoom ñooy atte. monsieur le cour des comptes ay magistrats ñoo fa nekk comme yow ni nga ko waxee dañu def seen liggéey ba pare bi ñu defee seen liggéey ñoom dañu sàkku mbir mi ñu jël ko yóbbu ko ci kanamu yoon li tax président Macky Sall bi mu taxawee ne defal leen ma euh, rapport. ñu defal ko rapport ba pare lan moo tax jëlu ko rek jébbal ko ministre de la justice wala ñu jël ko jébbal ko procureur. cour des comptes. Mhm. cour des comptes ñoom dañu am autorité pour saisir. waaw justice. waaw def nañu seen liggéey. gouvernement bi def na liggéeyam léegi kenn mënu fee toog di tergiverser ak di wax leneen mooy justice bi ci boppam. mu joué rôle am. amuñu si xel mu daal déglu leen déglu leen. dafa am bari amuñu xel mu daal déglu leen bu ngeen bëggee réew mi di dox. waaw ku ci nekk jox leen ko gëddaam ngeen jugé ko ci lañ ko jox. Mm-hmm. da ngeen wax ne séparation des pouvoirs ngeen di wax. waaw léegi def nañ rapport. Mm-hmm. jox nañ ko justice bi. waaw léegi li ngeen war a def yéen justice bi ci boppam ngeen war a laaj naka la def liggéeyam. waaw non dañoo gis. mais bu leen toog di dem ay demaleeg fekkeleeg ay affaire yooyu parce que président de la république téyewul dossier bi joxe na ko. na justice def liggéey man loolu laa la mën a wax ci loolu parce que du ma ci perdre sama temps ci yeneen détails yoo xam ni du am détails yu am solo parce que justice waxagul li mu war a def. pour man am na solo amul leneen. non monsieur ministre pour man am na solo li tax mu am solo mooy. dafay am loo xam ne dafa leerul ci bopp askanu Sénégal li ci desee leer mooy. leerul ci sa bopp yow. waaw man ak sénégalais yu bari. ndax rapport Cour des comptes bi mu paree. dañu gis ministre des affaires étrangères di dem di wër ay ambassadeurs ak di wax ak ñoom. ñu gis Amadou Ba premier ministre di woote ay concertation société civile bi président Macky Sall bi muy sant cour des comptes na ko defal ma rapport ñun yëguñu woon ne cour des comptes ma ngi def rapport moom su doon tey président logiquement bi rapport bi pare amutoon premier ministre amutoon ministre des affaires étrangères dafa doon jël mbir mi rek jébbal ko procureur mu jébbal ko. Euh, mu jébbal ko procureur léegi léegi nag monsieur le ministre. monsieur le ministre nga bu ngeen nekk da ngeen di seet mbir yi. ni mu tëddee ak ni mu demee ngeen waxe ko noonu réew amul ay jalgati ak di def wut ay ñal ak di tourner da ngay seet problème bi am na mu tëddee nga waxe ko noonu cour des comptes président yabalu leen ñoom dañuy am autosaisir di dem di contrôler ji ku leen neex assemblée nationale mën na leen ay jël ne leen dama bëgg ngeen xoolal ma fii mais bokkut ak IGE IG le président di yebal bu leen yebal. pour récolte la nekk de. déglul déglul. présidence mooy mooy mooy IG moo nekk président. ak cour des comptes waaye déglul waaye du dem te président yebalu demee buy dee rapport président la koy jox. cour des du xaar président di yebal moom day dem assemblée mën na koo jël ne ko demal bu dikkee day jël rapport am dem teg ko ci justice recommandé ko ne nañ def boobu cour. liggéeyam lay def magistrat ya fa nekk ay hauts magistrats lañu assermenté liggéey bi ñu def ñëpp ko rafetlu li waroon gouvernement bi mooy mu demandé ministre am ak ministre de la justice ne ko nañu xool loolu mu dem bañ teg ko ci yoon gouvernement bi def na ko. dafa nag li nga wax léegi ne société civile bu ñu taxawee di def marche adressé wu au président la république pour ne ko dañ bëgg affaire bii leer président de la république premier ministre la am da ko naan wool société nga wax ak ñoom te bi mu leen wooyee li mu leen wax nag gaa yi toog topp ko xool ba xam fu wànneen di mujjee ki bëtam mooy dem nañ nee na leen dañ ciy dem ba jeex dañ koy teg ci yoon donc loolu procédure bi ni mu demee ba ak si fii ñëpp ko war a rafetlu li ñu war a def na mooy xool suite ba naka lay mujjee mais bu ñu fi toog di mel ni kuy léeba ko dem ak dellu sax daf ñuy perte loo temps l' essentiel nii mu demee na ko ñëpp topp pour que justice def liggéeyam parce que noonu doo la war a demee ci pays de grande démocratie fépp noonu la fay demee fii itam noonu la fi demee bu leen nekk nag di fekk fii di dugal ay affaires yoo xam ne nekku ci man du ci mën a tontu man li ma mën a tontu je suis un homme d'état je suis un régalien li nga bëgg a tontu mais li ma la bëgg a tontu tontu leneen cour bi dama ne li bëgg a tontu si ngay tontu mais dama la bëgg a wax na la justice bii ngay wax nii mën nañoo wax ne président moo ko yëlif moo ko ndax tey monsieur le ministre des pouvoirs bi ñuy wax bind ko mën nañoo wax ne existé wul Sénégal ndax pour ndax euh, justice bii président Macky Sall moo yilif premier moo yilif ministre de la justice ministre de la justice moo moo yilif procureur te ministre Ismaïla Madior Fall ministre de la justice dégg nañ ko li mu wax dafa ne mbir mi dina ñu wax procureur mu autosaisir ci mbir mi waaye ministre yi nga xamante ni tey ñoo nekk ci gouvernement bi ñoom Mansour Faye ak seen ñoom ñoo ñu procureur munu leen a woolu ba pare dafa woolu aussi wóoluwuñ leen pour ubbi information judiciaire mais dañu leen a wóolu pour benn enquête préliminaire yow loolu dafa dal sa xel. mais xam nga man euh, am na ay détails yoo xam ne lu ma ci discuter yow man procédure laay wax loolu mu wax procédure bi la noonu la suñuy texte tëddee. te tout waaw d'accord léegi nag rapport bi c'est c'est pas la première fois ñu gis fi rapport bu ay corps de contrôle def président Macky Sall teg ci coñcam mos nañ koo gis. dama leen dama leen man. du ma werante ci ay détails li may werante ci lenn mooy li ma gis. xaalisu réew mi ñu luubal ko nga ne ay détails. déglu déglu xaalisu réew mi ay corps de contrôle yu crédible yu état bu Sénégal teg ñu jàpp ni ñii dañoo luubal alalu askan wi nga bëgg ko def ay détails. yow doo may yuuxu yi ngay def. tey waxal ma question yuuxu de non non non mënoo jël ay détails di ko def ay milliards réew mi. waaw doo ma déglu xam nga yow mënoo ma jaxase du ko du ko. man jaxase wu ma da may déglu rapport bi Sénégalais yi suivre fi ne nii ñu ngi ñuy suivre xam bu baax li may wax dama la ne rapport bi bi mu amee dama la ne dama cee kontaan parce que sama réew réew bu taxaw la. parce que magistrat yu mel nii toog ci réew génn fu lu mel nii booba république la bu doon yeneen réew yi la loolu du fa génn. muy benn deuxièmement man la président bi def na li mu war a def parce que nee na na affaire bi dem justice. premier ministre bi société civile génnee di manifester di recevoir ne leen société civile génn na waxal boppam ne bañ demee foofu lañ fa gis dal na seen xel muy yoon mooy dalee na nañ ko teg ci yoon. léegi li citoyen yi li seen devoir. mooy ñu toog xaar justice ba xam lan la ciy def leen lu ci waay wax ak leen lu ci kii wax ju yàqu la l'essentiel que nan ñaan yàlla lii nga xam ne lu yóbbu nañ ko tribunal na ci tribunal def la mu war a def loolu loolu duma la ko ci mun a waxaat jax na euh, léegi monsieur le ministre yow euh, yàgg nga ci euh, ci état mm-hmm. mais dañu gis ne sunu nguur yi mm-hmm. dañuy jëfandikoo ay rapport corps de contrôle li ci def di si faagaagal seeni adversaire politique rawatina ci nguuru Macky Sall beneen bi di ci def pression ci ñu mu àndal ndax xam nga ne rapport Cour des comptes bii euh, dafa bëri ñu épinglé ñoo xam ne peut-être mënoon nañoo frustré avant 2024 ay tey euh, ay Abdoulaye Diouf Sarr ak seen ñoom te fi mu nii doo si gis kenn ku yëngu est-ce que tey ñiy wax ne. sunu njiit yi dañuy jëfandikoo ay rapport corps de contrôle di si faagaagal seen adversaire politique si opposition bi ak di ci def pression ci ñi nga xam ne ñoom lañ àndal te rapport épingle leen lan moo ci sa xalaat. xam nga lii la wax bi yanuwul maanaam mooy cour cour rapport cour de compte bi cour cour des comptes bi ñim épingle yëpp ci gouvernement Macky Sall lañ nekk. waaw tëglu te ñëpp ñëpp def naa ne kenn moo ci nekkul ministre. te tey jii mi ngi nekk vice président de l' assemblée nationale nekk dans benn bokk yaakaar. waaw déggu leen ko mu dem. gisul leen ko mu dem donc. Macky nit yi Macky Sall déglu ma rek non s'il te ma posé question da nga ma terminé Sall ci boppam yu nekk ci gouvernement am ñoom la ñu épinglé ci rapport bi kon donc boobu rapport rapport bu ñu def liggéey bu rafet la rapport la boo xam ne bi nit yi Macky sàll lañ épinglé Macky Sall ne nañ ko yóbbu ci yoon kooku donc amul discussion amul tergiversé du ma fi nekk di jongler parce que je reste man ci fay factuel bi ci laa nekk beneen bi dooleeku mooy xoolal rapport bu ñu teg ku dëkk bu ñu tegul ku dëkk man xaw ma ko li ma xam mooy li ma gis ñu teg ko ci yoon di ko jugé la xam. monsieur le ministre xam nga nag. Euh, non man dama dafa wax mbedd yi ngeen di wax nii doo nekkuma ci. non nekkoo ci yow fi ne nii ku la woowoon ne la yow kaay fii nga wax ñu rapport yi ñu teg ngay dégg ci mbedd yi rek. ngay wax non non bu ñu ma ko waxee. wala bu ñu ma ko indi leen firnde dama ne la. corps de contrôle du cour des comptes kese. cour des comptes bu dee dafa def euh, dafa def rapport.

mais dama ne sunu njiit yi c'est au-delà de Macky Sall même Ablaye Wade tey jëloon na fi inspection générale d'État am dal ci kaw eh, sa Seck ñu gis fi rapportu inspection générale d'État mu dal ci kaw Khalifa Sall ñu gis fi tey euh, rapportu inspection générale d'État ñu ne dal na ci kaw Aminata Touré ñu gis ne. sunu njiit yi dañu yàgg jëfandikoo ay rapport corps de di daal ci kaw ay adversaire politique loolu nag boo si bëggee leeral nga leeral si boo bu la dee leeral aussi da ubbi sa bopp di seetlu yan maanaa ak lu jaar yoon nga di ko nangu débat bi noonu lay neexee mais su nga ci benn affaire rek di ca dem noonu te doo déglu li la ciy wax baaxul xool IGE nga fi gis ñu jël ay rapport am di ko utiliser noonu boo ma suivre sama émission yu bari yu ma def et puis je crois que sax masoon naa def émission ak yow mii wax fa loolu dama la ne IGE ci boppam dañ ko loger présidence de la république ngeen may président yi loo xam ne lii yéen a ko maye mooy IGE président bi yow yaa koy yabal bu indi rapport bi yow yaay téye rapport bi yaa koy xool def ci la la neex soit IGE nee na sanction administrative nga def sanction bi ou bien IGE nee na kii dafa demandé procédure pénale bu la neexee nga yóbbu bu la neexee nga jël rapport IGE bi xool ko ba xool ko ba mu doyal nga ne li ma doon seet gis naa ko ci nga dugal ko ci biir tiroir bi kooku tu es dans la légalité parce que loolu dañ la koo may bañ la ko may bu la neexee nga bañ a yebal bu la neexee nga yebal mu ñëw nga xool dama cee dolli woon ma ni li nga xam bi yéen a ko mayee ca ngeen gis ne awul yoon da ngeen koy dindi ngeen dem ba def les réformes qu'il faut génne IG présidence de la république jox leen benn immeuble ne leen am ngeen droit autosaisir su ngeen demee bu ngeen dikkee jël leen seen rapport ngeen jox ko tribunal mais lii ngeen gis Macky Sall di ko def moom la Abdoulaye Wade doon def moom la Abdou Diouf doon def parce que IG yéen a ko tënke noonu. kon réew bu ngeen bëggee mu dem bu gisee benn affaire bu ndoxul da ngeen koy réformer seet la ngeen ci war a corriger. ngeen corriger ko mais tant que defuñu réforme. mais loolu responsabilité bi déglu la peuple bi la déglu ma rek peuple bi la parce que un président la république bu ngeen ko nommé mu gis lu ko arrangé cam jaar ci yoon bu ko neexee du ko changé mais peuple bi nga xam ne bi ñoom ñoo toog gis ne lii kat gis nañ ko ni day jam day day day day favoriser président bi pour que bu toogee mu ne ca rôle mi. mi ngi def nii naa yónnee ñu xoolal ma ko bu demee xool Thierno Lo bu ñu dellusee su ko neexee mu sanctionné Thierno Lo bu ko neexee mu bàyyi Thierno Lo ko ko may loolu nag su ngeen ko bañee da ngeen koy dindi gis wax da ngeen da ngeen di déglu wax parce que li nga taxawal mu légal nga xam ne waa ji boo ko defee mënaloo ko ci dara soo bëggee mu kii da nga koy dindi par réforme en passant par l' nationale ou ñu dem ci benn référendum ñu tëggaat mbir yi teg ko ci ni ngeen ko bëggee mais tant que defu leen ko d' accord mënu leen a dindi li fi nekk ma ngi noonu ñun daal li ñu nemmeeku daal mooy ay rapport yoo xam ne corps de contrôle koy def ñu épinglé ñoo xamante ni daal euh, njort nañu ne dañu luubal aloolu askan wi te te dara du leen ci fekk mais waxtaan pour mu neex suñ ko waxee waaw da ngay tiire synthèse bi nga xam ne bi moo mën a jariñ askan wi te moo mën a taxaw li la naqari naqari keneen ñu mën koo faj mooy da ngay tiire synthèse ne IGE ñoo ko tëggee noo xam ne nii may nañ président yi fiy jaar yëpp loo xam ne lii nun d'accorduñ ci kon nan ko dindi dëggaat ko génne ko présidence yóbbu ko feneen loolu la nit ñi mën a retenir nga xam ne mooy jariñ ëllëg mais monsieur le ministre man li ma wax nii man moom lay retenir ndax tey nag dafa nekk corps de contrôle man maa lire rapport bi mu épinglé Mamour Diallo ne 94 milliards ne nañ ko topp moom ak Tahirou Sarr wax code penal code procédure pénale escroquerie association de malfaiteurs te rapport bi jébbal na ko président waaw ah, dégg fi mu défendre mu défendre mu défendre say boobu kooku dégg ci man ko ko dégg. da dégg ah, man ko défendre d'accord léegi. déggoo fii dama déglul bala ngay dem bàyyi leen seen ñii ngeen di def man dama la ne ku luubal nañ ko teg ci yoon justice ne joue rôle am man mënu leen ma jaaxal parce que principe yi ngeen di wax di principe bu république ak principe bu dëgg fi ngeen ma fekk fi laa taxaw au ma position par parloo yéen ñi seen position opposant yi yéen di dem da di jël toog ci benn affaire naan Macky Sall Macky Sall Macky Sall man nekkuma ci yooyu dama lay wax li war a nekk maanaam yow daal ku ku sàcc àllu réew daal da ko génne sàcc àllu réew mun di doon nag. da ko génne foo mun di jóge. mu faral Macky Sall ak. waaw ma faral faral Macky Sall ak di sama rakk ak sama mag ak sama mbokk. góoram Macky Sall ak doon nañ la teg yoon. d' léegi tey dafa am benn rapport inspection générale d' état bu ñuy wax ne dafa épinglé Aminata Touré ci ni mu yore woon conseil économique social environnemental Aminata Touré génn na nee na dañ ko bëgg a bund xataal ba pare sàkku na sax ab audition publique collective moom ak ñu mës a jiite. Euh, conseil économique social environnemental ci ayu Macky Sall yow euh, ñenn ñi sax ñu bari dañu jot ne dañ ko bëgg a faagaagal ndax position bi mu am ci troisième euh, candidature Macky Sall. Sénégal lañ Sénégal lañ bàyyi faagaagal parce que justice moom day fonctionner fa ngay bëgg nekk président de la république ak nga bañ koo bañ a nekk ak ba ñuy contrôler madame Aminata booba mu ngi biir APR rapport bi génn na kenn newul rapport bi génnul rapport bi génn na. moom bi ñu ko ko waxee li ñu ko ko wax moom mi ngi jël moyen de défense am mais nañ toog xool rapport bi lu muy mujj ak lu ci justice bi di def man amu ci point de vue xam naa daal rapport bi existe na ci jaune la moom mi ngi défendre nañ xool ba xam li rapport bi wax dëgg la ou bien du dëgg man gisaguma rapport bi de parce que déclaration bi wuñ ko pour que ma mën koo xool kon du ma ci nekk di ci tergiverser li may demander mooy. na dem ba jeex mu leer comme li ñuy leeral yeneen ak. d' accord jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Thierno Lo yow yaa nekk euh, njiitul alliance pour la paix et le développement yaa nekk tamit président conseil d' administration bu SENTER lu jëm ci gis nañ sax démb ci ajjuma ji yeewu askan yi dañu organiser woon manifestation place de l'Obélisque préfet tere leen ko. Mm-hmm. ñoom ñu jàpp na loolu salfaañi seen àq la. ak seen yelleef. boo foofu itam dama fi saluer démocratie Sénégal parce que nit ñi ñu ne ñun dañuy marche par force que itam ne da leen di dóor déedéet dañoo jaar ci procédure déposé préfet bi apprécié jox leen ay raison ne leen mënta nekk ñoom itam ñu nangu ko nekkul kon je crois que na démocratie bi di continuer noonu bis boo nit demandé autorisation te mu wóor ko ne li mu demandé mën naa marche te du indi benn problème dañ ko bàyyi mu marche suñu gisee ne day yàq. parce que nga nga tere ñii nangu kooku je dis que bi c'est très bien noonu la war a continuer di fonctionner mais dama ciy dolli benn affaire Sénégal nekk na un pays boo xam ni de démocratie et de liberté nañu fexe ba li ñuy tere gën a néew li ñuy autorisé réew mi dafa toll foo xam ne ñun kenn mënta museler les Sénégalais. Mmh. Sénégalais bu amee lu ko naqari dina ko wax. boo amee lu matam la ko dox kenn mënu koo tëj. kon société d' expression plurielle lañ nekk l' autorité nag ñoo ko may prérogative exercer na prérogative yi opposition bi nangu na ko je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Euh, monsieur le ministre lu jëm ci wàllum euh, troisième candidature président Macky Sall. Mm-hmm. ñu bari ci yéen Benno Bokk Yaakaar tey amatul lenn lu ngeen ci làq-làqal yéen li ngi wax ni yéen a ngi ñu bari yéen a ngi wax ne président Macky Sall am na sañ-sañ posé beneen candidature te 2019 bi mu naan bu ngeen ma falee 2019 moo nekk sama ñaareel ak sama dernier mandat ñun ñëpp fi la ñu fekk. 2012 tamit bi muy gàddu mer gàddu di dem ci place de l'obélisque naan Ablaye Wade du fekk troisième candidature fi la ñu fekk euh, lan moo ci sa position ci troisième candidature président Macky Sall. sama position mooy ma nekk dans la constance quoi man ca loolu aw ma waar. li ma waxoon ba président Macky Sall di yor mer gàddoom boobu di dem place de l'Obélisque ci position boobu laa nekkaat tey jii bi nga xamee nekk naa moom en alliance ba muy jël mer gàddoom mer bi da ko doon def contre man mi ñu àndoon ak Abdoulaye Wade ah. boobu lu ma ko doon wax Abdoulaye Wade munu leen koo teree dem c'est le conseil moo ko mën a teree dem yam foofu Abdoulaye Wade dem conseil constitutionnel ne ko war ngaa dem mu dem tey ji itam fi ma toog dama naan président Macky Sall sa wax ak waxu keneen compté wul amul maanaa kay décidé mooy conseil constitutionnel gis nga lu ngeen wax wax wax Idrissa Seck dafa demoon indi ay constitutionnaliste maître Wade di indi ay constitutionnaliste plateau de télévision yi ñëpp di mbébétu ba ñuy mbébétu laa leen ne wax leen ba géex conseil constitutionnel ngeen di dem kum ci waxul ne mën ngaa dem doo dem te ku ci falu ku ci dem bala ngaa falu da ngaa dikk prêter serment ci kanamam c'est le même discours que je tiens wax leen lu leen neex na président Macky Sall wax lu ko neex bu déposé jotee ku mu bëgg dem da nga déposé ji ci conseil constitutionnel ku mu ne da nga dem da nga dem ku mu ne doo dem doo dem te même boo demee suñ la falee tant que taxawoo ci kanam yëkkati sa loxo na ko yaa ngi defoo sa serment doo nekk président la république Sénégal léegi nag bu ñu xamee ne lu coow yu bari bari bari bari ci bari bii la ñu jëm te kooku li mu wax mooy nekk bala nga cee rey nit mbaa nga ciy gaañ ay nit mbaa nga ciy lakk ab dëkk yéen ñëpp nangu leen constitution bi nga xam ne bi moo leen may droit ngeen marche constitution boobu moo leen ne lii ngeen di dem lii laa fi teg moom ngeen war a donc donc waxu Macky Sall amul solo ci affaire boobu amul benn valeur juridique parce que su ngeen ko joxee su ngeen su fekkee da ngeen di jox kàddu kàddu président bi léegi président Macky Sall bu toogoon léegi daal ne waaw léegi man bu ma faloo 2024 par exemple amatul limitation des mandats du ma dem fenn dama fiy toog ba mu neex ma ma dem sama yoon léegi est-ce que da nga koy bàyyi bu def loolu il faut arrêter conseil constitutionnel moo ko naan xoolal bu sa cinq yi jeexee soo déposé waatul fii candidat boo fekkee man nga ko def boo déposé waatul doo bokk mhm. boo déposé te waroo bokk mu rejeté la mais bii nii nii nii nii nii nii nii président Macky Sall mais day déposé candidature mais candidature bi kenn xamul boo xam dana jàll ba du jàll yow mii bu la neexee nga jël enveloppe dugal ci sa këyit rek doo bind sax sa tur mu bind sa tur rek bul ci boolee ay cutis ak ay parrainage ak dara nga def enveloppe bi dem déposer ko dañ koy jël sànni ko ci poubelle bi ne la mënoo dem donc conseil constitutionnel mooy décider. mais est-ce que bu ngeen xamee li seen constitution tëral boo li mu tëral tënku leen ci constitution bi. Ah, non mais monsieur le ministre. moralement est-ce que président Macky Sall war na jël ay dossiers di dem conseil constitutionnel. dama la ni réew mi. kon moralement rek monsieur le ministre. da ngay déglu da déglu. le problème c' est pas un problème de morale ou d' éthique c' est un problème de droit. réew mi mën nañ si génne morale ak éthique. damay déglu xoolal morale ak éthique. nañ ko génne Sénégal déglu morale ak éthique ci doomu aadama bi la nekk. parce que réew mi gis nga fi ay sàcc gis fi ay reykatu nit gis ñoo xam ne seen kàddu tey du bokk seen kàddu démb gis nga nit ñoo xam dañuy wor. gis nga ñoo xam ne lu ñu wax tey bu subaa ñu dindi ko mais loolu ay comportement personnel la réew mi tënkuñu ko ci texte boo xam ne bi loolu moo koy doxal li ñu tënk ci texte dañoo wax ne booy dem candidat pour nekk candidat présidence de la république lii ak lii ak lii ak lii ngay defar boo ko defaree barab sàngam bii nga koy teg barab sàngam boobu moo lay mën a permettre nga dem du ay wax ay texte la wax bu ngeen dee jox réew mi ci wax di ngeen mujj dem ba teg seen constitution fu leen nit ñi di wax rek di dem. léegi kon yow jàpp nga ne juridiquement président Macky Sall war mu déposé candidature bu ko neexee déposé lay wax. juridiquement bu ko neexee déposé. bu ko neexee juridiquement. dama duma juridiquement ko conseil constitutionnel moo koy wax. léegi moral bu ko neexee mu déposé. léegi moral ak moral bi Macky Sall moral bi Macky la engage quant moral ak jikkoom ak ay principes yi muy fonctionner c'est son problème. d'accord moom la engagé. léegi léegi euh, monsieur le boo gisee ñuy wax ci mbirum troisième candidature dañu gis ay réew yu bëree bëree bëri troisième candidature ak forcé ci élection moo ko taal euh, de euh, dama déglu professeur Babacar Guèye mu ne Ablaye wàdd réglé na problème nombre de mandat ndax président Macky Sall bi mu fiy ñëw fekk na nombre de mandat yi nekk ñaar waaye dure de mandat la fi fekk la lañ réglé wutoon te président Macky Sall tey moom mi nga xamante ne esprit révision euh, référendum bi ñu doon def esprit bi moo nekkoon wàññi mandat yi ak ak ak limitation des mandats président Macky Sall xaru na ci wax na ci Ismaïla Madior Fall wax na ci premier ministre wax na ci ne ñoom li ñu tëgg li ñu def ñoom li ñu bind ci référendum bi jox Sénégal la ñuy voté mooy kenn mënut a def du toll ñaari mandat yu tegaloo wax jooju lépp léegi da ko bëgg a jël sànni ko fële. xam nga yow euh, def nga sa discours constitutionnaliste wax nga ba pare mais man dama dul tombé ci seen travers yi ak seen discussion yi ngeen di def man dama fee nekkul di defaat le référendum ak di interpréter constitution am na dëkk yu bari yoo xam ne tudd nga leen ne dañ doon tàgg dëkk yooyu xam nga lan lañ doon def gars yi dañoo ñëw di tripatuer ay constitution pour dugal ci ay troisième mandat Sénégal nag tollu woon ci ay tripatouillage de constitution xam nga fan lañ toll mooy am nañu un conseil constitutionnel moo war a walide nañ bàyyi ñu déposer fa candidature yi je ne fais ak yow di dugg ci ay théorie de constitution parce que jariñul dara d' abord du ma constitutionnaliste deuxièmement amul benn sens li nga xam ne bi moom moo am ca ndaw ga fa nga may fekk yow mun àggeeg jàmm mooy di nga gis gars yëpp lu mun di def da nga ne waxoon na ko coow li lim bari bari bari bari bari ñoom ñëpp jël nañ seen i dossier jox nañ ko conseil constitutionnel kum ci waxul ne da nga nekk candidat doo nekk candidat kum ci prêtewul serment ci kanamam doo ko nekk man li ma lay wax mooy lii nekk ca du deñ moom laa doon wax ñii ma àndal tey ñoom moom laa leen doon wax ba ma nekkee ci Abdoulaye Wade kon man sama constance ci la nekk ci duma ci jóg kenn mënu maa yóbbu ci ay débat puéril ay constitutionnaliste di dikk fii di permettre di wax ci wóor la ñoom seen wax kontul xam ne conseil constitutionnel moo am droit de validation xam nga loolu nit da jël de la hauteur nga nes respecter une république respecter la constitution man bu ma wóoree ni bu ma waxee wax a wax a wax ba géex wax bi du jariñ dara te man naa rey nit du ma ko def nga may ma occasion foofu ma fustiger le comportement de la société civile société civile dafa nekk un élément de régulation mooy bu bu ñaari kaandee xeex yow yaa war a nekk ci digg bi bu xeex amee nooy àtte. nan dañoo far position seen position moo doon toog ci digg bi bu leen neexee ñu toog ci digg bi di xool fan la légalité nekk ak ay affaires yooyu mais waroo dem di féete banaan xawma lan jàmm gën xam lan. troisième mandat ak nga toog ak ay nit yoo xam ñu ngi naan bu nee piit ba fa ba ko fi ñeppee ça veut dire que yow yaa ngi toog di participer ci ñoo xam ni dañuy def ay appel à l'émeute bu problème amee yow bu ñuy jugé war nañ la kaa boole. mais monsieur le ministre société civile bi ngay wax ni 2011 2012 ñoom opposition bi ñoo jaxasoo woon bokk même combat. waaw loolu moo fi amoon léegi yow euh, tey est-ce que. Euh, rôle société civile du dem di ànd ak ay parti politique d'opposition pour di xeex ay affaire te loo xam ne lii constitution bi réglé na ko ba pare. mais je peux je accepter que nga nekk ci benn régime boo xam ni c'est un régime de dictateur. boo xam ne dañuy brimer les populations di brimer les libertés xoolal. ñuy def marche fii moom presque moo non bàyyi maa gëlee damay wax man nañ resté ci fi ñu nekk fi ne nii ñoo ngi ci affaire mandat bi. su fekkee ne loolu ci yooyu bu ñuy birimee di nasaxal nit affaire yooyu société civile ak parti politique ku mun di doon ñoom ñëpp mën nañoo taxaw pour bañ lu mel noonu mais loo xam ne lii constitution daf ko réglé yow wuroo dem di parparloo da ngaa war a toog ne ñaar ñëpp. toog leen ku ci nekk ngeen respecté conseil constitutionnel bi conseil constitutionnel bi lu mu décidé bu boobaa ñun société civile ak ñëpp dañ ci àndandoo pour fexe ba loolu nekk parce que décidé na ba pare. d' accord léegi léegi léegi monsieur le ministre tey euh, yéen ñu si bëri am na sax ñuy wax ne président Macky Sall dafa am problème mu entourage ñu bëri ñoo ngi koy jiñax pour mu def beneen mandat mais est-ce que njortoo ne bu président Macky Sall waxee ne damay nekk candidat. njortoo ne dëkk bi mën naa yëngu. man xam nga dëkk bu yëngutu moom yomb na ci benn affaire président mën naa dem ne damay def déposer sama candidature ay nit wàcc ci mbedd bi daw lakki pneu def affaire yooyu mais gis nga euh, Sénégal dafa nekk réew boo xam ne dafa dëgër dafa taxaw yooyu yëngulu le 23 juin du mu ngi foon dafa tere euh, ñu def élection présidentielle même su ngeen defee plus que le 23 juin am fi du dana def liggéeyam dana affiche te dana dem ci élection yi bu soobee yàlla ak yonent bi li may ñaan mooy na nit ñi dal bàyyi conseil constitutionnel def li mu war a def lu conseil constitutionnel décidé nit ñi ànd ci moo gën ñuy rey doomu jàmbur yi ci du tere bu ñu affiché seen dëkk ñoom dañuy dem campagne li ngeen di foye dafa garaaw yow tey boo amoon assurance ne opposition bi yépp di wax bi buñ fexee ba bakkan wadd ci duñ def élection ñu ne ok mais ñoom ñu koy def même bu bakkan waddee bu déposé jotee dañ dem déposé ci conseil constitutionnel kan mooy perte mooy ki dee ak ay wuy juróom comme ni Mamadou Diop demee woon Mamadou Diop fi ne da nga diggante kenn ko tudd ay wuy juróom ñàkk nañ ko ca terewul gars yi dañoo dem déposé ci seen candidature dem campagne yi même chose moom ngay moom moom moom maa ngi ñaan yàlla yàlla bu mu fi am mais bu ñu continuer ci ñii di xam di xam di xam foofu lañ jëm même bu ci ay nit dee conseil constitutionnel dana def liggéeyam dana affiche te gars yi dañ dem campagne te bu ñu commencé campagne fàtte nañ ñi deewoon. d' accord waaw léegi yéen euh, alliance euh, pour la paix et le développement euh, kan ngeen jàpp ne moo nekk seen candidat. ñu laa bëggoon ci de les façons on a encore un an d'ici 2023 la ñuy soog a dugg nii ñoo ngi jëm 2024 parti bi dina war a def benn congrès alors danañ xool. naka lañ war a defee taxawaay pour jëmmale ko ci élection 2024 euh, yi mais pour le moment ñoo ngi nekk ci biir benn bokk yaakaar te bu ñu sañoon benn bokk yaakaar ak li nga xam ne moom la ñu am comme bilan benn bokk yaakaar am un candidat pour élection présidentielle bi waaw d'accord euh, monsieur le ministre tey 2023 euh, da ngeen waxoon année sociale mm-hmm. mais année yokk lañ fi gis mm-hmm. ndax yéen a ngi ni pétrole bi euh, gasoil bi essence bi yokk nañ ci cent franc suba lay démarrer à partir de courant bi dafay yokk te ñett yii ma la wax nii boo ko yokkee mel ni yokk lépp loo xamante ni rek njëg la ci réew mi ndax ndax li tax mooy euh, produit yi ñuy soxla wala leneen ak leneen ci courant moo koy doxal wala oto moo koy transporté ci wàllum essence wala wala wala carburant léegi yokk googu est-ce que du maanaam tas yaakaaru sax askanu Sénégal ci 2023 bu ngeen taxawoon ne année sociale lay doon. xam nga euh, aboré nga benn question boo xam ne te defe naa tey suba xaw ma bii si guddi tey suba defe naa la bi ma teelee yow dama bind ci benn groupe WhatsApp bu majorité présidentielle bi ñu wax affaire euh, situation bi ni mu méttee góor góorgóorlu dana ko yëg ma ni leen gis ngeen góorgóorlu ci boppam ngeen war a respecté parce que góor góorgóorlu. du koo xam ne kii da ngay ñëw léegi di ko di ko defal ay populisme ak di ko def propagande parce que góor góorgóorlu dafa yeewu góorgóorlu dafa xam àddina bi ni muy góor góorgóorlu dafa weesu fa mu tolloon nga xam ne moo raw léegi politiciens yi xam ne un mi ngi yor téléphone am mi ngi suivre information xam ne li xew ci àddina bi góorgóorlu day analyser comme tout le monde te góor góorgóorlu moomu moo fexe ba yóbbu nit ñi assemblée nationale équilibre les forces góor góorgóorlu moom moo fexe ba jël ay commune jox ko ay nit kon góorlu nekk na en avance ci ko politiciens kon xam na lu jaadu ak lu jaadu ma ni benn deuxièmement dañoo weesu air ba nga xam ne bi dañ naan toog ci taatu garab ga di wax rajo bi di toog wax naan diisoo ak baykat yi diisoo ak nappkat yi te du wax baykat bi naka la war a mën a defee ba di naan ndox mu set di tëdd ci lal bu rafet koom-koomam du yokk air boobu weesu nañ ko góorgóorlu dafa toll foo xam ne fi day revendiquer ay droit góorgóorlu dafa toll foo xam ne fii bu gisul lu ko neex day jël kartam dóor ko fu ko war a dóor kon góor góorgóorlu boo toogee ak moom ci jamono bu mel nii dee ko wax dëgg gis nga jiitum réew waroo subir ay pression groupe pression opinion ba doo jël li nga war a xam ne da ko koo war a jël léegi pour ko mu jur lu baax pour askan wi. réewu Sénégal. loo bëgg subvention bi ci boppam laa la bëgg expliquer. Mhm. état bi d' abord attalu ko. te bu continuer di subventionné lii gis nga budget social di social bi nga xam ne bi moom la ñu war a jël pour def ko ci yeneen secteur duñ ko def nit su fekkee ni yeewu na mënoo koo nax lu situation méttee taxul nga wax ko dëgg mais mesure ba ngay jël ëllëg na gis ne dana jur lu rafet kon da nga gis ne état bi dafa jël ay mesures yoo xam ne attanu ko dama yàggale subvention amul benn état boo xam bi attan na ko parce que boo subventionné da ngay perte ay xaalis yu bëree bëree bëree bëree bëri bu ko defee la nga waroon a def ci yenn secteurs yi moom ngay bàyyi dikk di ko def ci pétrole bi ak leneen i problème il est vrai que war nga fexe toujours ba alléger panier de la ménagère war nga yokk ay salaire war ngay def social war nga koy def parce que loolu moo tax nit ñi di la fal nit ñi bu ñu la falee c'est pour nga jox leen bien-être te pour que nga aar leen sécuriser leen faj leen loolu moo tax ñuy faj président de la république. kon lan moo tax lan moo ñuy wax lu léegi nag li xew contexte mondial bi maîtriser wuñ ko d'abord un gouvernement yi fi jaar yëpp def nañ benn erreur bu mag. mooy suñu autosuffisance alimentaire dañ ko liggéeyal ba lépp dañ koy jéggaane pour di ko lekk problème la. beneen bi nag développer suñu agriculture defar suñu industrialisation ba mën a am suñu koom-koom boo xam ne moo nu mën a permettre ñu jël suñu développement en ko kooku régime yi fi jaar yëpp dañoo échoué. dese laaj waaw ñoom ñëpp a laaj. même Macky Sall Macky même Macky Sall parce que Macky Sall defulul autosuffisance alimentaire bien que def na ay euh, surface yu bëri yoo xam ni lii defar na leen pour que nit ñi mën cee béy def na lu bëri ci secteur yu bëri mais autosuffisance alimentaire amuñu ñoo ngi importé ba léegi li ñuy lekk yow pousse sax mënoo koo defar fi mu toll nii industrialisation amaguñu ko donc c' est des manquements qu'il va falloir corriger. mais dama lay wax ne nag yooyu nag manquement yooyu moo indi situation bii nga xam ne bi guerre bi ñëwee ak yépp am. kon du day a métti ci ñun su ma li nga wax sa argumentaire du day gën a métti. day gën a métti bu day gën a métti nag da jël ay mesures léegi nga am courage toog sa peuple sa peuple boo ko dee diriger bu méttee da ngay taxaw wax ko dëgg ne ko métti na lii laay jël danaa ko jël ci telle période bu mu paree dana mën a jur lii parce que li ma ciy économiser lii laa la ciy defal. boo ko defee sénégalais dañuy yeewu jiitu politiciens yi kon propagande ak di leen jéem a nax dafa fi jeex na ngay tax ak peuple bu yeewu xam li mu bëgg di ko revendiquer da ngay taxaw di waxanteeg moom dëgg soo ko waxee dëgg nag benn affaire laa wax boo defee politique da ngay def sa évaluation politique yi seet ba xam politique bii nga taxawaloon li nga ci defoon naka la demee ak loo ci war a nga jëm ko corriger beneen bi des da nga war a xool yan mooy priorité pour sa réew bu ko defee koom-koom bu ndaw ba nga am suñu néew nga def fa ci axe yi nga xam ne bi la prioritaire la day en gendre ay plus-value yu la mën a permettre nga développer yeneen secteur kooku ay choix économique la yoo xam ni ku nekk war na koo def beneen bi mooy ñi nga xam ne bi ñoom ngay tànn di leen jox li réew mi moom nan xam ne lii réew mi ko moom muy benn lu ñëpp bokk la beneen bi des dañu war a xam ne ñoom ñëpp dañu war a xam ne ñoom ñëpp tàmbalee ca président la république ba jaar ci ministre jaar ci directeur ak ku mun li doon koo xam ne kii yaa ngi toog fonction publique di la fay serviteur u état nga ndaw la mu ñu yón bu ñu yónni pour ko mën a liggéey pour réewam ñu di ko fay kon na xam ne li muy gérer intérêt général ñëpp ko bokk kon na ko def ci nu mu gën a sell est-ce que sunu njiit yi xam nañu priorité réew mi ñoom ñëpp xam nañ ko ñoom ñëpp xam nañu lànk ñoom ñëpp xam nañ ne seen salaire bi ñuy am ci askan wi la jóge ñoom ñëpp xam nañ ne dàq ñu fee jàng te gënuñu fi juddu ba tax ñu jox leen loolu Sénégal dañoo ñëw il faut choisir une équipe jël nañ leen indi nañ leen sant nañ leen nan def ci intérêt nit ñi loolu mooy li nga xam ne moom moo war a nekk beneen bi des ku nu dénkati alalu réew mi nga ñëw jalgati ko defoo ko na nga ko war a def nañ la teg ci yoon parce que réew boo xam ne bii ku ci nekk da ngay def la la neex di wax la la neex boobu réew buñ la nee dana développé du développé wu kooku nax sa bopp la beneen bi ci dollee ko Sénégal amul di subir yeneen pays yi nga xam ne bilee dañu am pétrole lan subir Sénégal waru koo subir parce que xamul tax ñun bi ñuy ñëw fekk nañ ay ay réew am pétrole ba pare xam nañ ñoom seen pétrole lu tax amuñu ca lañ ca war a am te gis nañ seen pétrole lañu leen indil kon ñun di nañ benn exemple nañ fexe ba la dal ñooñu du ñu dal parce que nit bu la jiitoo ci mbedd nga gis ñu ngàdd ko mbaa ñu def ko fa dara booy def yow war ngaa xam fan ngay jaar ak la taxoon ñu ngàdd ko mbaa ñu daaneel ko yow war nga fexe ko def donc ñun war nañu fexe ba du ñu toog di bañante di xiironte di tëkkaate di ñaayoo ba ñi bëgg dem sango gee di jël suñu pétrole bi foofu. d'accord mais ak di jël suñu gaz bee. dikk mmh. jaxasuñu ba ñuy xeex bu ñuy xeex fii ñoom ñu nekk di ko jël. dem ma li dafa am bi yow bëgg nga histoire parce que opposant ngeen yéen. journaliste yi ci bari yéen. déglu rek bu leen fi dikk fi déglu ma ma àggale bu daw bul daw bul daw bul daw déglu ma rek il faut que lii may wax. di woote jàmm fu nit di wootee jàmm du ngeen ko du ngeen ko bëgg mu àggale parce que yéen bu ngeen tañoon réew mi ne sës di tàkk bu tàkkee yow mii doo ci mucc di kon dee leen wax dëgg <laughs> non man <laughs> euh, bu tàkkee doo ci mucc de non monsieur le ministre man du ma du ma opposant man du ma du ma pouvoir léegi dama la bëggee wax na léegi kon ñun d'accord nañ ne nguurug Macky Sall lajj nañ ci li nga xam ne moo ëpp solo ci réew ndax li ëpp solo ci réew mooy manal sa bopp lépp lu jëm ci li ngay dundee euh, d'accord nañ ci loolu léegi tamit monsieur le ministre d'accord nañ tamit ne sunu nguur yi duñ ñuy wax dëgg ndax sénégalais yi. ñun amuñu problème ñun problème bi ñu am mooy wax ñu loo xam ne yow leer na la ne mënoo ko te yow say wax mooy nguur gi li ñuy wax ni mënuñu ko léegi euh, léegi nag. déet lan laa wax ne nguur gi li ñuy wax mënuñu ko fu ma la waxee loolu. mooy. dama la ne ci fi ñu nii ñu ngi nekk ci yokk ay prix. waaw ma ne la contexte mondial moo ko indi soo yoree sa réew. xam nga yow lii nga gis nga discours bi nga def nii bu da nga leen di da leen di expliquer nga jël ay mesures yoo xam ne dina jur lu baax ëllëg. gis nga discours bi nga wax mm-hmm. mooy discours boo xam ne sénégalais bu ko dégg. Mm-hmm. xam na ne mooy dëgg te xam na ne noxoo kenn. Mm-hmm. Amadou Ba premier ministre dafa dem assemblée national ne dunduk askan wi dafa gën a ñoŋ. te yow xam nga monsieur le ministre dafa gën a ñoŋ dafa gën a ñoŋ maanaam askan bi seen dund dafa gën a bakkane xam nga loolu amut. boo ko xoolee ci benn côté bi xam nga li tax xam nga li tax nañ nañ dem ci fond bi yàlla suñ boroom bi ñuy ñu defee ñun ne ñu dem leen ngeen dëkki Sénégal est ce que daf ñu wax ne di toog naa leen dëkk leen Sénégal mais dem leen ngeen nekki Inde ak Chine nee ma déedéet yàlla daf ñoo teg fii nañu xoolal li ngeen di lekk. ci suuf si laa leen ko defal. waaw dem leen ngeen bay suuf si. Mhm. moo leen di yor suñu maam yi ñu jiitu woon mais ci suuf si lañ daan bay ku ci nekk sa gannaaw kër amoon na benn tokkër bu nekk foofu tokkër boobu ci li mu daan yor seen sàq se di bay di ci lekk daaw ñu importé duñ lekk ceeb déglu ah. rek déglu rek ci suuf si lañ doon dunde ñun ñoo ñëw bàyyi suuf si ngeen bëgg a lekk caviar bëgg di lekk liñ importé di changer train de vie donc pour que ñu def le consommer local benn valeur la deuxièmement ngeen delluwaat ñu dem de régler problème mbay mi mbay mii ci boppam tant que développé wuñ ko Sénégal du dem dañ war a dem maîtriser ndox mi fleuve bi. waaw di irriguer ko ci biir Sénégal. ñu def exode urbain mooy nit ñu dugg ci biir taax yi dem ci àll bi ñu dem bayi bu ñu bayee matière première bi nga xam ne bi la moom lañ fay am moo lay permettre nga def ay industrie de transformation créer ay plus-value bu may doxee transport dox commerce dox assurance dox industrialisation dox élevage dox éco élevage économie ci foofu la tëdd mais loolu laa benn réew buy développé ca développé wu loolu amul ca lool nag que ce soit le gouvernement de Senghor ah. que ce soit le gouvernement de que ce soit le gouvernement du président Abdoulaye Wade que ce soit le gouvernement de Macky Sall dañ cee waaw léegi leer na kon léegi dix ans président Macky Sall yi mën nañoo jàpp que li ëpp solo cim réew ak liy doxalum réew muy wàllum mbay wàllum moom sa bopp euh, am indépendance indépendance euh, alimentaire président Macky Sall euh, la jëlee si léegi nag monsieur le ministre. doucement. bu résumé bu résumé le mandat du président Macky Sall ci Afrique président Macky Sall. non man waxuma waxee Ablaye Wade Sall laay wax président Macky Sall laa la ne bu résumé mandaam ci loolu dañ la ne am na lu ko dese ci régler problème autosuffisance alimentaire mais le président Macky Sall dafa am yeneen domaine yoo xam ne mi ngi jëm ci lu jëm sa santé yow sa santé. hôpitaux yi mu def ci Sénégal plateforme yi mu def ci biir Sénégal. par exemple par exemple déglu rek. ay médecins professionnels déglu ma déglu ma déglu ma déglu fii suñu médecins yi ñu yor gis na ni ñu amee force de défense et de sécurité bu nekk corps d'élite. ni ñu am ni lañ amee ay. hommes de santé yoo xam ne nekk ay kii amul benn réew. amul benn réew amul benn réew boo xam ne dafa matal ay médecins duñ ko dox rek. mais li ñu lay wax ne mooy am nga ay hôpitaux. hôpital bii ñu la mujj a defal ma jox la benn exemple rek lu tax nga xam ne vision bi président Macky Sall di def euh, man dama koy chanter ci yenn côté yi bien que mi ngi def yu bari yoo xam ne d'accord uma ci mais amul lu nit koo xam ne kii da ngay def loo xam ne lépp a baax am na lu baax am na lu bon ma jox la rek benn exemple hôpital Touba xam nga dañ naan hôpital Khadimou Rassoul du pour Touba arrondissement Darou Moussi mhm. bépp hôpital Touba boobu la ñuy fajee ko toutes les communes de Darou Moussi de l'arrondissement parce que amul benn dëkk Touba Mérina Sam Yabal Mbadiane Ndoye Daaru Marnaan amul benn ci dëkk yooyu boo xam ne digganteem ak Touba. mat na cinquante kilomètres. hôpital boobu déjà fa la ñëpp di fajoo si kon du hôpitalu Touba. d'accord déglu rek autoroute à la Touba bi nga man bu may dem Darou Moussi damay départ fii deux heures de temps maa ngi sama biir kër à Darou Moussi kon naa ko nag autoroute ila Darou ila Ndoyeen. ila Kébémer ila Sarr ila Ferré déglu rek ba pare. lycée yi gis nga li mu ci def agriculture bi ñuy wax sax sànq mi ngi aménagé ay zone agriculture moom dafa yàqu xoolal amul amul amul agriculture dafa yàqu agriculture dama la agriculture moom dama cee d'accord ak yow defaguñ ci liñ ci war a àgg guñ fi suñ ci war a àgg mais dama la ne président Macky sal dafa def ci infrastructure yi loo xam ne li infrastructure réew mu amul mën tam développement même sax même sax seen sona même sax seen Sonacos bi li ñu si doon xaar dara amu ci ndax bu buñ demee keroog bi ma dégloo baykat yi surtout Kaolack naan naan di réclamer indien yi ak chinois yi dama tiit ndax li ñu bàyyi ko su néew bu dee Sonacos mënu koo dem jëndi ba baykat yi di woo chinois yi ak indien yi y'a problème. xam nga loolu xam nga loolu li nga posé mooy Sénégal dañoo war a défi redéfinir la politique agricole du Sénégal. du te sa émission bi laa ko jëkk waxee de dama ne depuis le président Mamadou Dia. li ñu doon président programme agricole politique agricole man gisuguma ci président Ablaye Wade ak fii ay Gouana ak ay affaire gisuguma une véritable politique agricole boo xam ne bii moom mën a jël le développement du Sénégal gisuguma ko. mais lu tax président Macky Sall woowu la laaj sa xalaat yu mel nii te man xam naa ne yow xam nga mbay. parce que moom la ñu moom moom moom la ñu jiital. xam nga moo tax moom bëggul. respecté wul kon moom non seulement kon moom moom bëggul réussir. moom moom lañ jël mu yor 17 millions de sénégalais. mais di laaj ñoo xam ne xamuñu xaali wala kasiran ci wàllu mbay loolu mooy yëpp sénégalais yi mooy fonto sénégal yi. mais non président Macky Sall noonu laa ko jàppee. président Macky Sall mi ngi jël ay xam-xam. par seen xam-xam amul njëriñ. dama lay non xaar man mënu ma ne seen xam-xam amul benn solo li tax amul solo mooy. ba fi président Macky nekkee ba léegi. ñun amuñu autosuffisance alimentaire amuñu autosuffisance sax maïs wala sax tamaate wala euh, wala sax soble. loolu laa la wax moo tax ma ne la kon ñi koy xalaatal. xanaa ma jox la benn exemple am na loo xam ci Sénégal yi lañ bokk xam nga yaa ngi tudd maïs xam nga tudd nga maïs. waaw. bi ma nekkee ministre conseiller président Abdoulaye Wade kaña si. Mhm. groupe boobu dañu ñëwoon fii dem Fuuta. bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a fi noonu ay mbaan mhm. bëggoon a ñëw pour def fi maïs mais sama bureau lañ ma fekk ne ma ñoom ñi ngi jóge senegal pour dem Burkina Faso parce que fii duñ fi ñëw ñu leen di laaj loo xam ne lii xam nga sénégalais yoo xam ne amoo patriotisme bëggoo sa réew ba ay investisseurs ñëw nga leen di laaj lu tax ñu daw dem Burkina Faso bi ñu demee Burkina Faso ñu déroulé leen le tapis rouge ñu commencé fa di fa def mbay maïs yu garaaw fa la président Abdoulaye Wade dem ba mu demee ñu visité loo ko mu gis ko daal ni je vais faire tant de tonnes de maïs au Sénégal ñëw fii di ko wax te fekk ba ma koy wax man ko mais monsieur Abdoulaye ko demee monsieur le président ñii nga gis fële fii lañ dëkk ñëw sa réew ce qui veut boo amul ñoo xam ne dañu am degré de patriotisme waaw bëgg seen réew sa développement ci boppam du dem lu bëri di ko ñàkk investisseur bu dikkee dafa am loo ko war a teg ak loo ko war a teg mais dafa am ay ay nit yu nekk ci Sénégal yoo xam ni amuñu benn fibre patriotique seen intérêt particulier yi ñuy gérer au détriment de l' intérêt mooy problème mu Sénégal même boo gisee ci problème mu débat bi li tax bi du nekk débat bu fructifié bu ñu mën a tiire dara mooy débat wu par par lool féete naa fii dara baaxul nekk naa fii kii li muy wax dara baaxu ci du ko nangu daf maa gis nga tant que tooguñu def intérêt général ci kaw ñun ñëpp ñu fexe ba fructifier ko parce que bu intérêt général bi doxee moom mooy rogalaat wàcc nii ku ci nekk mu fekk la fa nga nekk nga gis ci sa bopp donc suñu débat dafa war a weesu ay débat par parloo d'accord dañu wax ay débat économique seen li war a defar réew mi ñu wax ko te buñ ko waxee ba pare ñu seet ñi ko dàq ci ñun ñu jox leen ko. jërëjëf euh, monsieur le ministre léegi wax duy jeex euh, tey yow la ñu invité si rajo Rewmi FM mais bu dee tamit lajj nañ ci mbay mi gis nañ tamit lajj nañ ci euh, élevage wàllum élevage ak wàllum pêche. ndax tey ñun Mac président Macky ñi mu àndal ñu si bari dañoo complexé affaire pétrole ak gaz Macky Sall mënul xëy te du wax pétrole wala gaas waaye mbay mi. sàmm gi napp gi ñetti bànqaas la yoo xam ne bu si Sénégal defee li mu ci war a def dootuñu am benn jafe-jafe ndax napp gaa ngi nii pêche illicite bi rek plus de 150 milliards la Sénégal di ñàkk beneen bi yàq euh, géej gi weesuwul wala jaay géej gi signé ay licence de pêche yoo xamante ni dafa lëndëm ba ñu bari di sàkku ñu audité ko fan yee Sénégal dem na ba Mauritanie gii di fa signé ay licence de pêche yoo xam ne pour ñun ñu dem di nappi ci waaxi Mauritanie te Sénégal am lu toll ci 700 kilomètres de code loolu euh, monsieur le ministre mënoo ko mënoo mënoo ne loolu kon amuñu. non man xam nga xam nga li yow xam nga fi ne sa émission bi yow sa intervention yi yëpp Macky Sall daal lajj fekk. lajj na lajj na lajj déggu rek déggu rek lajj na lajj na lajj na rek ngay wax xam nga ni loolu moom soo ko waxee da wax li la neex moo tax ma di la na ne lu opposant nga mais garaawul amoo droit nekk opposant bu la neexee nga gis lépp di lajj Macky Sall am na fu mu lajj am na fu mu lajjul mais li nga posé léegi comme question dafa war a nekk. pêche bi dañu war a réformer suñu pêche bu Sénégal nga xam ne régime yëpp laa ci boole parce que li gars yi def erreur defe nañ pêcheur bi nga xam ne bii dafa yor dafa war a yor gaal di nappi jàppale bi nga ko war a jàppale mooy toujours nga koy jox gilet pare-balles ak di ko jox moteur déedéet loolu du réussite pêche pêche buy réussir mooy ki nga xam ne bi dafa yoroon gaal di nappi dafa war a toog ba yàgg mu am bateau de pêche dem di def ni chinois yi di def ñeneen ni ñoom moom mën a dem di pêche ji parce que bateau la yor da war a jóge ci gaal dem ci bateau mais gis nit bu nekkee ci atelier yor marto di dóor ci di dóor pont di dóor pont ëllëg da ko war a fekk mu dem di defi leneen di defi leneen muy progresser mais doo juddu juddu ci gaal dee ci gaal kooku du progression. parce que booy tàmbali di def pêche war na la jox ay ressources yu la mën a permettre bi accompagner leen ñu am ay bateau de pêche que suñu doon am ay bateau de mais danañ dem di pêche yi ci biir géej gi li yeneen bateau yi di def di ko indi fi di ko transformer pour notre industrie mais duñ leen bàyyi ñuy dee ci ah. buñ ay ay ay loo politique bu baax duñ leen moo tax moo tax li nga wax ni c'est moo tax ma ne la dañu war a réformer le secteur de la pêche waaw et que secteur bu ñu am Sénégal dafa war a créer ay capitaine dans chaque secteur dañu war a am ay pêcheurs yoo xam ne dañ naan pêcheur bii de Soumbédioune la nekkoon yoroon na benn pirogue bu ndaw. mooy milliardaire bi moo yor milliardaire moo yor unité. de transformation des poissons. li nga wax ne mooy firndeel li mooy firndeel li ma wax nag bu nekk il faut qu'on crée des des des mais teg loolu nag pour que moom bu ñu nekk. il faut que ñu bay iñaanante gi ñu iñaanante suñu biir Sénégal yi bu buggul ko dawal oto bu rafet romb ko Sénégal yi buggul ko yor gaal def ko boo ko defee ñu ne eh, kii di nii kii di nii mais nañ ne kii am na nañ fexe ba keneen am nañ fexe ba man ma am loolu mooy développer réew. mais kon yow xam nga ne taxawaay bi leen bi kon xam nga ne taxawaay bi état bi war na am ci pêche bi des ma mais man déggoo li ma la bëgg état wu Sénégal état wu Sénégal laa la wax commencé depuis Abdou Diouf. mais mënoo bàyyi Abdou Diouf depuis Abdou Diouf dëpp man damay wax régime yëpp parce que ah, Sénégal continuité la continuité la donc depuis Abdou Diouf Wade ba ci président Macky Sall am naa insatisfaction bu mag ci affaire économie Sénégal ak ni koy doxale parce que pour man. erreur bi gën a garaaw ca gën maa naqari gën maa metti boo yoree réew bëgg koo développé nga yor 17 million de sénégalais mais booy choisir les meilleurs d'entre nous nga gis ñi nga xam ne bi dañ génnoon ci école tubaab depuis 1960 ñooy gérer économie Sénégal te réussir nu dewuñu fenn nga xool ci réew ña fa gën a mën a dem mooy ñi jaar ci daara ji. dëgg la ñoo génn ci daara ji ñoo gën a riche ci biir Sénégal ñoom ñooy entreprendre di def. commencé élevage bi élevage mais dañu commencé dugg Dakar di jaay suwetma nga jékki-jékki gis leen ñu toog pañu buro nga jékki gis ñu yor taabal bu mag nga jékki gis leen ñu yor boutique nga yor gis leen ñu yor unité industrielle. ñooñu la chaîne économique de plus-value ñoom ñoo koy réaliser pour quelle raison parce que langue bi ñu man mooy arabe la ñu jàng yow nga jàng tubaab. ñoom ñëpp la xam-xam dàq la liggéey parce que la valeur travail ñu ngi ko jaaree ci daara ja lañ ko jàngee. Mhm. liggéey fa lañ ko xamee. seen xel di développé yow boo dikkee nga ni parce que waa ji làkkul tubaab mi ngi làkk arab kon dama ko war a éliminer kooku tant que réglé wuñ ko. Sénégal du dem d'accord waaw jërëjëf euh, monsieur le ministre mm. euh, xam naa ne waxtu wi jeex na mais euh, sa parti bi nga xam ne mooy alliance pour la paix et le développement yéen a ngi waajal li nga xamante ni tey moom mooy moom mooy congrès mm-hmm. candidature benn bokk yaakaar. waaw ci benn bokk benn bokk lu waral loolu. parce que ci alliance lañ nekk alliance bi nag euh, gis nañ ne ay euh, compétence ak ay parti ñoo fa nekk pour àndandoo boole seen doole pour développer Sénégal am na benn affaire sax boobu ma wax la ko ci sa question bi nga mujj posé xam nga ni ñu amee ay yeewu ay wallu ak ay benn bokk yaakaar Sénégal bu fekkoon ne ñun doon noon def débat te bëgg di tiire dara ci suñuy def kon parti politique yi bëri fii yëpp ci biir Sénégal. dañ koy daal di régler daal di am ay quatre entité yoo xam ni dañuy def ay primaires. pour ñu def ci élection présidentielle. Mhm. ñi nekk benn bokk yaakaar war nañoo mën a def benn benn benn mouvance ñi nekk yeewu def ko ñi nekk wallu def ko ñi nekkoon aar Sénégal def ko muy quatre entités. su ko defee dootuñu wax ay ay pléthore de partis politiques ñuy def ay primaires. di def ay débat de programme. Mm-hmm. pour yóbbu Sénégal ci kanam. jërëjëf euh, monsieur le ministre Thierno Lo yow yaa nekk euh, njiitul euh, yaay président conseil d' administration bu CNTR yaa jiite alliance pour la paix et le développement yow la ñu invité woon tey ci rajo Rewmi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h ngeen di sant ak Abdou Khadre Seck monsieur ñu lay sant di la gërëm. waaw ah, maa ngi remercier te ñaan jàmm ci réew mi parce que jàmm ci la lépp jox di daje samedi bi di ñëw incha allah bu jotee ci beneen jataay.